sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafi al anbiyaai sayidina wa moolana wa xabibina wa mustafana muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte ci jotaay bi nga xamante ne ñu ngi koy def muy jotaay bu am barke ñu yaakaar ko ci te yëg ni dinañ ci am incha allah ndax wax jooju ñuy wax ni waxtaane wi ñuy waxtaane nit yàlla yi ci la yàlla di wàccee barke ci suñ jëmm yi kon yàlla nañ ko yàlla defal Euh, tey nag ñu ngi toog ak Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane mu fas yeneen ñu waxtaanal lenn ci tariixa bi wala ñenn ci tariixa bi parce que waxtaane gi ngay waxtaane ñenn ci tariixa bi mooy waxtaane bi ngay waxtaane tariixa bi muy tariixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu xam ngeen ni euh, gis ngeen photo bi nekk ci suñu wet euh, ki féete nii ak man mooy El Hadj Mansour El Hadj Mansour mooy doomu Cheikh Seydi El Hadj Maïs radiyallahu anhu ki nga xam si moo féete ak Chérif mooy El Hadj Abdoul si Sy Dabakh radiyallahu anhu alhaaji euh, Abdoul Aziz Sy Dabakh euh, nekkoon xalif général de Tijane ñu bari miin nañ ko ci jëfam ñu bari miin nañ ko ci bindam ñu bari miin nañ ko itam nag ci ay kàddoom yaakaar naa génération bi mujj judd sax xam nañ kan mooy alhaaji Abib euh, kala alhaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh waaye jëmm ji dend ak ñun muy alhaaji Mansour am na ñu ko xam ñu bëree bëree bari waaye am na itam ñu ko réere ñu bëree bari ndax lu néew la lu tumranke la nga dégg ko ci waxtaan moom ci alhaaji Mansour mii nag tey ci la ñu bëgg a jëmale suñu waxtaan Euh, xam naa Chérif ñu bàyyi la nga nuyoo ñu door a waxtaan ci jëmm jooj ñuy waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziyaar yéen ñiy déglu ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw euh, di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo jël si wax ji muy suñu mbokkum daara di al ustaaz alxaaji Malick Fall dale ko ci moom ba ci ki yor programme diine yi di al oustaz Hassan Diouf ba ca kaw di alxaaji Sidi Lamine Niass directeur général nuyuwaale ci suñu mbokk mu sëriñ Hadi Niass euh, Malick ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di balu àq ñëpp ci lii ñu fas yéene wax lu ci jub rek ñu bokk ko sant yàlla lu ci dëng nag ah nit a mata di rek du suñ jubluwaay jërëjëf kon Chérif Ibrahima Aïdara wax naa léegi ni dañuy waxtaane alhaaji Mansour radiallahu anhu alhaaji Mansour tey buñ ko doon waxtaane mën nañoo tàmbali xëy na ci Seyd alhaaji Malick ak ci way juróom wu jigéen waaye nag mën nañoo tàmbali feneen sax fu gën a sori loolo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na maam yu bari yoo nga xamante ni tey li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum di wax ni maamam moo tudd rek mën nga ko caa tagg moom yonent bi ndax ay jikko yu rafet yu sell mm-hmm. loolu nag moom moo gaar alaaji Mansour mi ñuy bëgg a mm-hmm. tey boo ñu doon waxtaane ci alaaji Mansour ci fan ngay ak ci ñan ngay tàmbale mm-hmm. jërëjëf xaaji Malick euh, ñuy waxtaan ci alxaaji Mansour nit booy wax ci moom da ngay tàmbalee ci cosaanam te cosaanam génnul way juróom wu tedd wi Seydal Xaaji Malik ak way juróom wu jigéen di soxna safiyatu ñang waxoon naa la ko ca waxtaanu sëriñ ab Ba ne la Seydi Hadji Mansour mii ñuy fas yéene waxtaane nag dañ koy def ñetti pàcc rek ci lu gàtt bu njëkk bi moo di moom fi mu jaar bi mu bi muy gane àddina ni mu ganee àddina ak lu jiitu muy gane àddina ak ci wàllu njàngam fi mu jaar ak wàllu taxawaayam gannaaw bu jàngee ba ni génn àddina Seydi Hadj Mansour mooy ñetteeli doomu Seydi Hadj Malick ci góor ñi bu dee jigéen ñi nag ñi ko mag bari na mooy la ma la waxoon ca waxtaan wu njëkk wa ne la soxna safiyatu ñang bi muy ñëw biñ koy dënk Seydi El Hadj Malick tudd loon safiyatu alfi la tuddoon alfi ñang Sidi Hadj moo soppi tur wi ne safiyatu yàlla def nag Sidi Hadj Malick bi soxna si ñëwee ci loxoom am na juróomi doom yu jigéen te amul góor moom soxna safiyatu waaw bi mu ñëwee bañ jox ko Sidi Hadj dafa yàgg ci kër gi amul doom bu góor mm-hmm. ndax moo moo moo moo moo jur soxna Asiya Malick Asiyatu Malick moo jur soxna Fatima Malick moo jur soxna Roqaya Malick moo jur soxna Astu Malick moo jur soxna Nafisatu Malick ñooñu ñëpp kenn la ci alaaji Mansour mag mooy soxna Nafi ñi ci des ñëpp ñoo ko mag mageel googu ñu ko mag nag jiitu ko ci kër Seydi Xaaj Malick soxna si yàgg ci kër gi am ñeenti bant yu jigéen ñépp di jigéen te amagul góor ci ci ci ci xërug doomu aadama mm-hmm. ak ci bëgg-bëggu doomu aadama mm-hmm. mu dem ci góor gi Seydi xaaji Hadji mm-hmm. ne ko si dama bëggoon nga ñaanal ma yàlla ma am fi bant yu góor su ma sañoon daal am fi góor góor gi ne ko dégg naa ko mu demaat ab diir waxaat ko ko góor gi ne ko dégg naa ko mu toogaat ab diir ñetteelu yoon bi bi mu ko ko waxee na góor gi ne ko ah dafa mel ni itteel na la ah sëy day doom du ca bénéfice waaye ndollente la ca sëy ca euh, sëy doom du ca chart waaye bénéfice la ca mooy ndollente la ca mm-hmm. mu ne ko kon daañ ci def itte ci la woo sëñ kër Si mm-hmm. radiallahu taala moom Seydi El Hadji Malick mhm. am dog bu mu ko jox ne ko yow ak diw ba ngeen juróom-ñaari nit séddoo leen ko ngeen def ko te yéene ko soxna si sa tànta sa yaay Safiyatu yàlla may ko fi njaboot gu góor mhm. moo tax sëñ Abdou daan wax ni euh, sëñ kër si bàyyi la ci man ndax participer na ci sama juddu noonu la ko defee ci Seydi Hadji Mansour daf leen mag bu baax moom sëriñ Babacar nee na ba dog ya yeggee soxna si xam ne loo bëgg bëgg bëgg bëgg am na lu la war fekk amoon na ay jur ca jolof jur googa nag muy dem yónnee ñu nemmeekul ko ko mu fekk yor na fa ñetti yëkk yu mag mu ne nañ ko ko dàqal indil ko ko Tiwaawan ñu dàq yëkk ya indi ko Tiwaawan muy ñetti yëkk yu mag bi ñu ko indee waxtu tisbaar ba góor gi jógee jàkka ja dallu tuuti war a delluwaat ca daara ja pour jàngale ci mm-hmm. ci la ko soxna si ne ah balaa ngaa dem daara ja de bëggoon naa nga yegg ci wanag wi xool gan ya fa nekk mag ñi xam nga dañu am sutura te xam teggin nu ñuy waxee Seydi xaaj Malick dem ca wanag wa fekk fa ñetti yëkk yu mag mm-hmm. nee na mu ñëw ne ko Safiyatu lii nag ku ko moom mu ne ko ah xeeb naa ko lool waaye maa la ko jox ngir nga ñaan gi ma la santoon ñaan gu ne laaj na weexal maa la ko weexalee xam naa sax du peyam waaye maa la ko weexalee ngir li ma la doon ñaan loo yàlla def ci barke mu ne ko inchaa allahu inchaa allahu inchaa ci yàlla def barke nga xam ni kon mag ñi li ñu am dañ ko jënd li ñu am dañ ko kaññe mhm. kaññe ci baatu wolof mooy li nga wax mooy dañ ko jënd mhm. tooguñu rek ne yàcc di seet ñun nag jamono bii ñu toog dañuy àccaataan yaakaar na da ngay croisé les bras lépp fekk la fa mm. loo dëkk dëkk ak ku baax boo jéemul baax doo baax jeex na mm-hmm. kon sëñ Xaaj Malick mm. la muy doon doon borom këru soxna si mm. teewul di niirlu na ko ba xool ndax itteel na ko wala itteelu ko soxna si it nekk ku am xel ku ñor ku yàlla may xam ne ñaan gu ne am na lu ca war mu jox ko ñetti yëkku yu mag Seydi Hadji sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ci lañ dem tuuti nag soxna si am alxaaji Mansour mii mille neuf cent mooy doomu sëydi Hadji Malick bi njëkk a juddoo Tiwaawoon moom alxaaji Mansour hmm. doo buñ la laajoon tey ban doom la Seydi Hadji Malick am bu njëkk a juddoo Tiwaawoon mooy sey mooy mooy Seydi Hadji Mansour Mm-hmm. moo njëkk a juddoo Tiwaawan ci li Seydi Hadj am mm-hmm. ñi ci des ñëpp juddoo wuñ Tiwaawan bi muy juddu Tiwaawan it mm-hmm. at bi mu juddoo at boobu la Seydi Hadj rëdd jumaa Tiwaawan ci la Seydi Hadj Malick rëdd jumaa Tiwaawan 1904 ci bi bi sëñ Abdu juddoo ah. zawiye bi ak jumaa ji xam nga du benn magante na ñeenti at. magante na ñeenti at. 1900 mm-hmm. ci la Seydi Hadji ci la Alaaji Mansour juddu. Mm-hmm. gane àddina. Mm-hmm. ci la Seydi Hadji Malick rëdd jumaa Tiwaawan ñu commencé faa julli. loolu rek am na lu muy bijji. am na lu muy bijji junj. la muy junj nag neex naa xam. Seydi Hadji Mansour bi mu ganee àddina way juram Seydi Alxaaji Malick tuddee ko yonent bi Mouhamadunil Mansour. moom la ko tuddee yàlla may ko it mooy doomu Seydi Hadji Malick bi yaroo ci keppaaru Seydi Hadji Malick génnu fa loolu la ko yàlla defal moom génnul ci keppaaru Seydi Hadji Malick bi mu ganee àddina ba bi baayam di génn àddina 1922 mook Seydi Hadji Malick ñoo dëkk mm-hmm. waxtu bi mu bi mu matee ndaw ba ni mu génn àddina wax na sëñ Abdou nee na waxtu wu Seydi Hadji Malick di ubbi buntam ci ndiggal Seydi Hadji Mansour lay dal loo ciy déggee mooy ci bunt ba la daan toog di xaar baayam soxla ko loolu ca la nekk ak Seydi Hadji Malick moo ko jàngal ci loxoom Seydi Hadji moo ko jàngal ci loxoom moo ko dalal alxuraan ba mu am juróom-ñetti at mokkal alxuraan mu dalal ko xam-xam Seydi Hadji Mansour sàkku na ci moom ñaari yoon sax pour génn jàngi mhm. comme ni moromam yi daan def maanaam dem ndar wala dem feneen wala dem feneen mhm. mu ne Seydi Hadji Malick ne ko déedéet matu ko toogal li ñëpp jàng la ko jàngal mhm. li ñëpp xam dinaa la ko xamal ba leneen lu dul loolu yi Seydi wax na ko mu toog ak Seydi Hadji Malick nag dégg ndigalam mbooleem rasaa'il yi daan jóge bitim réew ak mbooleem rasaa'il yi Seydi Hadj Malick daan bind Seydi Hadj Mansour a ko daan bind bu jógee bitim réew Seydi Hadj Mansour a ko daan liir jàngal ko Seydi Hadj Malick lettre yooyu bokk na ca bu Muhammad Nadifi bi bind duratul xarida wala yaqutatil farida wax nañ ne keroog bi lettre bi ñëwee ci moom Seydi Hadj Malick jox ko ko ne ko liir ko mu ne ko ah kii arab yi muy làkk fursa bi muy làkk ak man arab yi muy làkk yi may làkk utee na mu ne ko Mansour liiral rek bu ma la ne liiral loo liir xam ko Seydi Aj liir lettre ba kooka moo bind duratul xarida wal yaaxutatil farida mboolem lettre yi daan jógee bitim réew ci naar yi di ñëw ci Seydi El Hadji Malick moo ko daan réceptionné tey boo ko doon wax ci jamono pour nit ñi dégg ko danga naan mooy Pape Makhtar Kébem Seydi El malik Malick ni Pape Makhtar Kébé meloon ci Sëñ Abdou mm. noonu la El Hadji Mansour meloon ci Seydi Hadji Malick mm. taxawaay comme secrétaire. moo doon secrétaire am. Mm. pendant vingt deux ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne teq teqalikoowul ak Seydi xaaji malik benn jamono. la ko waral nag mooy booba magam sëñ Babacar si Seydi Hadji Malick ko waxoon sori ma. Mm-hmm. Babacar sori ma. mu ne ko ma dem Ndakaaru mu ne ko dafa lëndëm noppeegu ma fa. Mm-hmm. mu ne ko ma dem Ndar mu ne ko dafa sori mm-hmm. su ma la soxlaa balaa ngay ñëw day yéex. mu ne ko ma dem Thiès mu ne ko dafa jege Tiwaawoon ba mu ëpp. mu ne ko ma dem Tëngéej mu ne ko waaw kañ foofu baax na demal Tëngéej. moo taxoon sëñ Babacar si nekk Tëngéej. te dafa ko moo ko. waaw ma ba mu ko tàggoo Louga mu ngoog mooy li nga wax daf ko ne maga nga fa. muy góor gi maalik sàll mu ne ko mag a nga fa te mag dañ koy jox orma mu ne ko tëngéej nag mu ne ko ak kañ foofu baax na moo taxoon sëñ Babacar si radiyallahu anhu nekk tëngéej comme sëñ Babacar mooy taaw Sidi Ahmed génn na àddina sëñ Babacar si moo fi nekk alaaji Mansour nekk fi pour sëñ Babacar génnee alaaji Mansour génn kon du baax xaaji Mansour nekk secrétaire u Seydal Xaaji Malick ci ndigalal Seydal Xaaji Malick diiru lim nekk ak Seydi Hadji Malick yëpp Maodo di ko jàngal génnul ci kuurukaar ak Maodo moom Maodo ko yar li may nettali nii Alaaji Ahmad dem Sokone moo ko wax man mii di wax nag Sokone laa juddoo Alaaji Ahmad dem nii ma la xamee nii ñu toogee noonu laa ko xamee noonu laa daan toogee moom li may wax làmbatuwuma ko maam la ci man it Alaaji Ahmad dem moo wax ni mu ngi ko wax mu ngi ko nettali na ko soo ko nettali na ko nee maa ngi ko waxee ba alaaji Mansour génnee àddina mm-hmm. nee dafa am bés moom alaaji Mansour mu jógee Sookoon dem Tiwaawan seeti alaaji Mansour di waxtaan ak moom ci wàllu yàlla mm-hmm. nee na ñu waxtaan lu kowe ci niveau bu kowe ci wàllu yàlla mm-hmm. mu ne alaaji Mansour ne ko Ahmad dem xanaa xamoon ne ban biñ mooñee Seydal Xaaji Malik la ca desoon man lañ ko mooñee waaw mu ne ko maa ngi lay yëgal ne ban bañ mooñee Seydi El Hadji Malick la ca desoon man lañ ci mooñ mu ne ko maag Seydi El Hadji Malick ñoo bokk benn ban buñ ñu mooñee xam nga loolu xam-xam boobu xam ko rek beneen beneen beneen martaba la beneen marxala mhm. la alaaji Ahmad dem ne wax bi kowe ci man mhm. mu ne may seet lu ko confirmer Alaaji Ahmad dem Sokone ma yox mu ne may seet lu ko confirmer te confirmation bi mënuma ko am lu dul Alaaji Mansour génn àddina ma xam nag lim door a wax mhm. booba la ci Alaaji dem Sokone jublu moo di Cheikh Sidi Ahmad yi moo wax ni kenn ku nekk mhm. ban biñ la mooñee boo génnee àddina ci ban boobu lañ lay delloo delloowaat Seydina Cheikh moo wax loolu jëlee ko ci waxu yonent bi mhm. mu ne nag kon fokk man Ahmad dem Sokone ma ñaan yàlla mujj ko fi ndax wax bii mën a confirmer mu ne ba bi góor gi génnee àddina fekkewul rob bi moom alaaji Ahmad dem mm-hmm. mu ne waaye bi ma ñëwee Tiwaawan laajte fan lañ denc ci alaaji Mansour ñu ne ñu ngi ko toftal ci gannaaw baayam Seydi Aji Maalik mu ne kon wax ja dëgg la mu ne keroog laa ko nettali mm-hmm. ca dëj bu tooy ba fa la ko alaaji Mansour nettali kon dañuy dégg ci wax ji ne alaaji Mansour ci biir xabru Seydi Aji Maalik lañ ko denc ñu ngi ko denc ci biir xabru Seydi Hadji Malick mook Seydi Hadji Malick ñoo kole moom tax waykat bi di wax ni Mansour la ñu la ñu uufal baayam kañ moo tax mu loolu la waykat yi di wax ne Mansour la ñu uufal baayam mu ngi ci gannaaw Seydi Hadji Malick net mhm. kon la waxoon ne ban biñ mooñee Maodo la ca desoon moom lañ ko mooñee loolu confirmé wu na mook Seydi Hadji Malick fañ tëdd tey loxo sax doxul seen diggante boo fa dugalee loxo du fa xaj est-ce que kon wax booba confirmé wu na waaye alaaji Mansour. ndax euh, nga baal ma Chérif ndax loolu ci sakk càkkutéefu ko euh, alaaji Mansour la bi muy dund. Hmm. kane nañ ma denc ci sama wetu bàyyi wala jamono ñëw rek yàlla bëgg a dëggal wax jooju alaaji Mansour ki waaw kañ jamono ñëw yàlla dëggal ko ay sàkku hmm. bi mu génnee àddina am na feneen fu ñu xalaatoon pour pour denc ko fa sëñ hmm. ab doo ko wax. bi ñu xalaatee foofu mu ne am mag ñu ne tey ñu ko def ci gannaaw Maodo mu ne ñe ko ñe ko ña cee d'accord ba mu am sëñ Hadi Touré ca la bokk mu ne bi ñuy de gas pour denc ko muy golleeku xam nga golleeku ci wolof. mooy suuf si di màbb. kay mooy suuf si di màbb di wàcc. Mm-hmm. mag ñi mënuñu fexe ba am pexe muñ ko muñ ko gasee ba suuf si bañ a golleeku. Mm-hmm. pour bu gollee ko kon Seydi Aj Malick day feeñ. te du teggin. Mm-hmm. neena na sëñ Haadi ne leen kaay leen xam nga sëñ Haadi Seydi Aj Maalik nga ko jàngal xam-xamu astrono astronomie moo ko ko jàngal muy al mu nujum eh, yal nañu yàlla fayal mag ñi Haj Maalik sëñ Haadi indi ndox ñu jox ko ko mu di ko wicc di ko wicc ndànk di ko wicc ndànk di gas di wicc di gas di wicc bu bu wiccee ba mu tooy ñu gas bu wiccee ba mu tooy ñu gas bu wiccee ba mu tooy ñu gas ba mu am fuñ ko denc ci foofu noonu lañ dencee alaaji Mansour ci gannaaw seydal Alxaaji Malick mm-hmm. diiru nag lim nekk ak seydal Alxaaji Malick Maodo jàngalal ko boppam alquran jàngalal ko boppam xam-xam jàngalal ko bopp funun yëpp tarbiye ko nag boole ci moom lañ waxit ne mooy kenn nit koo xam ne moom la Seyd Alxaaji Malick defal ijaaza tarbiya xam nga nit ñi dañ foog ne ijaaza mu ngi yem ci tariqa beeg maye wird mm-hmm. ijaaza ay martaba yi ngay am sax dañ la ciy defal ijaaza mhm. alquran dañ ciy def ijaaza mhm. fiq dañ ciy def ijaaza mhm. yeneen ak yeneen waaye martaba ijaaza euh, tarbiya ijaaza tarbiya wax nañ ne moom sël Seydi El Hadji Mansour moom la ko Seydi Hadj Malick bindal gannaaw bi mu ko tarbiya ba gërëm ko mu nekk noonu ci ron Seydi baayam Seydi El Hadji mën nañ wax yàgg na mën nañ wax yàggul ndax 1900 1922 Seydi Hadj Malick génn àddina kon 22 ans la def ak baayam mm-hmm. Seydi Hadj Malick yàgg na yàggut. waaw ah, ndax itam 22 euh, ans moom xale bu ci bu ci kii da ngay da ngay mujj di xàmmee nag. mën nga ci jàng sax ba mu mokkal ci alquran. waaw déggoo ma ne la à l'âge de 8 ans. Mm-hmm. juróom-ñetti at la mokkal alquran. bi muy am ñaar fukkeet ak benn jëm ñaar fukkeet ak ñaar Maodo jàngal na ko xam-xam yëpp. Mm-hmm. ba jàngal ko xam-xamu bii nit ñi di tiitaroo tey. li ci Alaaji Mansour xamoon kenn xamu ko ci. xam naa fànn googu moom dinañ ci ñëw parce que ñun am nañ ci yuñ ci jot a gëstu di ko laaj ay nit ñu ñu koy wax. Mhm. buñ ci accès di nga ñu ci duggal. su ko defee nag doy loo wutoon it ne Maodo ko jur. Alaaji Mbay mi daan jottalil góor gi Alaaji Mbay mi daan jottalil Seyda Sey Sëñ Abdou. Mhm. Alaaji Mansour ko yar. Seydi Aji moo ko yëkkati ci teg ko ci loxoom Alaaji Mbay sàmba jëbëre sàmb benn bii benn bii mm-hmm. sàmba jëbëre sàmb mm-hmm. alaaji Mansour Mbay mii mm-hmm. bu RTS ñii alaaji Mansour leen yar ci loxoom alaaji Mbay nag Seydi Haaji Malick moo ko yëkkati teg ko ci loxol alaaji Mansour mooy taalibe bu njëkk alaaji Seydi Haaji Malick Seydi Haaji Malick sa turandoo teg ko ci loxoom alaaji Mansour ne ko ñii dënk naa la ko ba àllaaxira alaaji mbay ca la bokk góor googu tamit ku xamoon Seydi Hadji Mansour la ndax moo ko yar moo ko tarbiya moo ko Seydi Jamil Seydi Jamil nag moo doon seen mag bi góor gi génnee àddina Seydi Alxaaji Malick 1922 ci la alaaji Mansour commencé nag di déplacé wu nekkoon na ab diir bu yàgg jagsaaw jagsaaw nag fa la defee mbir yu garaaw yi ngay dégg ci moom yëpp fa la ko defe waaw euh, boobu un kilomètre de jagsaaw boo ñëwee ci dëkk bi. Mhm. pousse un kilomètre fa la dëkkoon néeg ba mu fa tabaxoon amul toiture. Mhm. bu daan taw ci kawam buy naaj ci kawam. Mhm. sondel yim daan taal dafa mujj nekk ay jal jalu sondel. alaaji mbay góor gi alaaji mbay nee na boo ko mosaan jox sondel bu la nee jëndali ma sondel moom heure ni ngay ni ngay soxlaa montre xool ci heure moom boo ko joxee sondel bi nga jënd bu ko jàppee rek xam heure bi ci mayam la woon <laughs> dama raam dama jëndal ma sondel mhm. parce que sondel yooyu la daan taal mhm. boo ko joxee mu ne eh, bii mënta dem guddi gi deux heures du matin lay yem wala une heure bu dem ba fajar laa wax sondeel bi bu koy téyee rek xam ñaata heure xam ñaata tàkk-tàkk lay diire fa mu nekkoon dafa mujj def jal ni ngay ni nga demee ci daara ji ñuy taal matt ba mu nekk jal moom noonu la amee woon jali sondeel hmm. Seydi Jamil nettali na ne boo mosaan nekk ci dëkk bi Alaaji soo nekk ca néegam booba hmm. mu ne da dégg ni dënn bi di riiree ci turi yàlla fa la daan waxe xasidaam yooyu fa la bindee bindam yu bari ci la daan waxe ni yéen ñi bëgg yàlla mm-hmm. jege leen yàlla mm-hmm. fa la daan yore it mm-hmm. ñaari kurus bii ci loxo ndeyjoor bii ci loxo càmmoñ te ñëpp kurusi junni la te bu ci nekk lim ciy wax bokkul ak li muy wax ci moromam ñaari kurus yëpp di dawandoor. voilà Chérif euh, Ibrahima dara ñu bàyyi la nga dallu tuuti. <laughs> parce que dafa mel ni ñu ngi bëgg a xaajal ci waxtaan wi. te da wax ba tudd euh, xasiday Alhaji Mansour yi. Mm-hmm. te man léegi sax maa ngi yër léegi ay xasidaam. Mm-hmm. mais mu yéem ma lool. Mm-hmm. ndax dinaay dajeeg moom mais. am na yu ma dajeegul woon am na yu ma ci jot a gis yoo xam ne mosuma leen a gis mhm. mais xasida yu yéem la mhm. ci baxaru yu yéeme yéeme mhm. am na joo nga xamante ni tabaarakallaahu ni mu ko ni mu ko riimee eh, yi ay miimi ya yi ay laami ya yi ay nuuni ya yi ay xaafiya la ta xam nga euh, xarfu xaaf hmm. bokk na ci li nga xamante lu gën a jafe la maanaam miimi ya ak laami ya la gaañi la gaañi gën a yem hmm. waaye moom ci baxru yi gën a jafe ci lay ci lay wayee hmm. baxru yooyu am na ci yoo xam si sayid mi suñu mbokk bi dana ñu ci yëkkatal xam naa ñu bàyyi la da nga yëkkatal ñu yow itam ci bayti El Hadji Mansour si radiyallahu anhu Hadji Mansour ne fa waaka bida min ubbi man la muraaqihi sa turandoo wa barustiyaaqi lil ayaami yahulu xoola ko bàyyam moo ko wax muy Seex Siraaji Malik moo ko wax turandoom xoola imaam Sirif nee na ndeysaan ñu ngi ko tuddee yoon ci Yàlla Muhammad te mooy Muhammadul Mansour waaye xoola ndeysaan se turandoo Seex Siraaji Malik nee na turandoom mu yonent yàlla Muhammad fa waaka bida min ubbi man lam ulaqihi wa barusti yaaqi lil ayaami yahulu ki may sayiduna muhammadu rasulullahi li bëril awaaqirun fa man raama nayloo yonent ba yëkkilu wala yusa ilayi wasulo yo njol ma keelin ngeen maam Mansour Malick nee na yaa rabbana alaaji Mansour nee na yaa rabbana yaa rabbana yaa ayu yaa qayyumu muminu yaa salaamu yaa karimo alaaji mansour malik ne salli ala badrin duja xayrul wara man huwa xayrul man awwa amara yu nan ba ki mooy anil aqiqati nabi muhammadi yonti ala muhammad salli ali rabbana ya samade bàyyi sëriñ bay si mansour ne wa ali wa sabi lujumi uli tuqa maadil ulumi ينت على محمد رب الصلاة ينتوي الجنان من نوري ويسوت العرفان ينبي على المنصور مالك نبيع على المسلم المكلم ينبي صلي عليه ربنا وسلمي barakallahu jërëjëf Seyid euh, kon euh, mbokk yi ñu fàttaliwaat leen rek ni ñi ngi waxtaane alxaaji Mansour si radiallahu anhu di kenn ci njabootu Cheikh Seyid alxaaji malik si xam nga moom mooy euh, deuxième xalif bu Cheikh Seyid alxaaji Malick donte ni fan yam fa toog bariwul xam naa loolu sax danga nga ci ñëw chérif mhm. incha allah ginnaaw ji mu wuy ji boroomam Euh, Seydil Hadji Abdoul Aziz si toog mm-hmm. waaye rek ñu fàttalee ni ñi ngi waxtaan ci dundam ak jaar-jaaram mm-hmm. ci jëmm jooju nga xamante ni ku mat a xam la ku mat a ràññee la waaye ku mat a jàngat la ak dundam mm-hmm. ndax euh, ñun ndaw ñi ak ñenn ci mag ñi sax man a roy ci moom ndax am na ñoo nga xam si xeñtu mbaax rek moom moo leen yitteel xeñtu itam ku baax rek moom moo leen yitteel mm-hmm. kon Cherif Ibrahima Aïdara mm-hmm. yaa ngi doon wax bay tudd ci wàllu ni mu doon jaamoo yàlla mm-hmm. xam naa ab laaj la sax bu ma la doon waaj a laaj waaye dañ koy lonk foofu rek te mooy ni muy jaamoo yàlla wax nga ni sax parce que man barki démb rek gëstu naa ba àgg Tiwaawan may laaj ay mag mhm. ñu ni ma bokk na ci ñim daan jaamoo yàlla mooy li nga wax léegi mhm. mooy ñaari kurusam yi mhm. ñaari kurus yi alaaji Mansour yi moom siiwoon na euh, te itam tur yàlla da ko daan liggéey bu baax a baax a baax mu mel ni ku daan wéet ak boppam la di jaamu boromam lu baax a baax te foofu nga doon euh, yëkkati dañ lay bàyyi nga soppi rek ci alaaji Mansour ak ni mu doon jaamoo yàlla waaw gis nga nit ñi loolu li ma li tax ma indi ko sax nit ñi ñi ci ëpp dañuy doyloo diwa ma jur te diwa ma jur kese doyut mm-hmm. bu la diw jore juree mm-hmm. dangay fexe ba nekk diw sinon ràkkal ngay doon mm-hmm. te juddu ci xeet nag nekk ràkkal wa musiba la diw jot juree da ngay fexe ba nekk diw moo gën nekk ràkkal wala fu ndakaaru nag moom booy wax ak ñoom day métti ràkkal mooy boo pressé diwlin diwlinu gerte boo ko pressé ba am diwlin ja lay des nga xam ne mbaam ya lañ koy jox ak xar ya loolay ràkkal nekk ràkkal nag nekk diwoo ko gën. ndax diw la. ndax diw dafa cher te ràkkal cherul moo tax bu la diw jore juree mm. da ngay fexe ba nekk diw moo gën rek doyloo diwoo ma jur. Mm-hmm. moom nag doyloowul ne Seydi Hadji Malick ma jur. Mm-hmm. xol nga façon tarbiya bi ma la wax. Mm-hmm. tabax néeg néeg boo xam ne amul toiture nga dëkk ca. bàyyi sa kër bàyyi taalibe yi lay jox hadiya ku la jox hadiya nga delloo ko ko nekk ca àll ba ca jagsaaw ca booba jagsaaw di jagsaaw mu ñëw ba fi nit ñi dëkk mu dem un kilomètre après nekk fa mhm. sondeel la daan taal lam daan lekk ñemewoo ko lekk daqaar laaxu daqaar bu amul suukar moom la daan lekk mhm. léeg-léeg reen yiñ ko daan defee daan na ci boole juróom-ñaari reen yoo xam ne moom lañuy ñuy composé def ko muy safaay gi ndax yooyu reen yooyu day faj alxaaji Mansour bu daan jaamu yàlla am na genn góor gu ma nettali ne mos na koy bës mook sëñ Habib góor googu daan na bës sëñ Habib mu ne mos na koy bës ni mu tëdd nii mu ne mu jékki-jékki gis benn tànk yaakaar ne tànku alxaaji Mansour la nee na mu téye tànk bi di bës ba mu yàgg gisatu tànk bi mu ne laaj man su ne ko eh bàyyi tànk boo gis rek bës ko. Ah, bàyyi tànk boo gis rek bës ko fii ñëpp a fi ne. góor gi alaaji mbay nee na foofa ca jak saaw góor gi alaaji mbay moo mooy ki baan jottalil mhm. lu jiitu Jóob Njaay mhm. góor gi alaaji mbay nee na foofu la ko alaaji Mansour joxe woon benn dog ci salaatul faatihi dog ba yeggul téeméer góor gi alaaji mbay yoo xam ne mu ne dog ba yeggul téeméer mu ne Seydi man Mansour ne ko alaaji mbay dànd ma tuuti demal na li nga def dog bi mu ne góor gi mbay ne ma yegg dem yegg suuf di def dog bi ne na maa ngi sëgg concentré wu jublu xibla ne na jékki-jékki am benn jëmm ju taxaw sol jàllaabe sol kurus ci baat bi jël baaraamam teg ko ci sama jë puus mu ne ma sëgg nee na mu puus ma ba ma siggi lonki kurusam ni ma hal taarifu nii ndax xam nga ma mhm. nee na ma yëngal sama bopp mu ne ko ana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi alaaji mbay nee na góor gi alaaji mbay nee na alaaji Mansour jak saaw la ma njëkk a wonee yonent bi eh, Seydi Hadji Mali eh, Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi mhm. yàqazatan laa ma te nee na dog mu ma joxoon ci salaatul faatihi matut téeméer kon gis nga mag ñi ñun nag dañ fiy nekk dog bu nekk ñu ko laal téeméeri junni da gis ku ko si kër ci bés bi nelaw ba biddan ci sikar ba sa baaraam yi toj. waaw ah,